ñun daal ñoo ngi daal ñoo ngi daal di dem seen seen waaw Newsweek. Sam. Sam. Sam.

waaye da cee bari ñu tukki woon te fii nu toll sax am na ñoo xam ne ñëwaguñu waaye jàm jàmbaar yi daal nga jàpp ni sa bëgg rek lañuy ñuy lépp loo xam ne sa dara la dañuy ñaan yàlla yàlla mu njëriñal réew mi la te ñun ci réew mi lañu nekk jàmm rek lañu bëgg di dox jàmm ñi ñun liggéey rek mooy sunu wàll amuñu leen lu ñuy def doonu dégg ci lenn doo dégg kenn ni taalibe sëñ Touba ak ci ñii waaye koo euh, euh, yéene woon nañu loop lool nag euh, li ñu wax ñaari téeméer ak juróom fukk la ci wolof ci million di deux cent cinquante millions ah dañ maa def jëwriñ ci kanam waaye jàppal ni ñoo ma gën a ëpp Pastef ñoo ma gën a jub ñoo ma gën a ñoo man ci liggéey bi danaa ci cité ñenn rek ku mel ni sëñ Abdoulaye Jam yi ak Serigne Seck mii ak sëriñ Pape Fall mi euh, ak Mbacke Samb mi ay nit la ñu yoo xam bu ma nee bu ma téléphoné nangam rek dañuy mel ne ñoom dañuy daw ci sëñ bi la jëm ak Serigne Ousmane Ndiaye mi samus mii maa ngi ko doon fa Ousmane Ndiaye ku baax la lépp loo xam ne woote naa ci euh, dañuy mel ne ku may puus lii lii sëñ laay mi xalaatam la man xalaatoon naa ko waaye dafa tukki France la ma wooyee alxamis ay 4 heures fekk maa ngi añ ba pare ni ma mbay war ngaa yëngatu ndax ci mbëndum Touba nga woote ci nu jëf ca dem ca kanamu sëñ bi teg ko ci loxoom mu ñaanal nu nu dellu ca waar wa ba mu fa jógee 4 ma dem sama bureau laa toog mooy passif gii nga xam ne moom laa lay wax am nañu ko 16 heures avant 18 li dajale jege na téeméeri million ci téléphone rek ci yoon wi sax am na xam ne fi ne ñu ngi woote di joxe ñu ni ma nag nan dem yóbbu ko ajjuma naka tey bu nu jullee takkusaan ba pare Mbàkke daal sax njaboot a nii say taalibe ngi nii dégluwuñu lu dul yow lañuy ñuy déglu lépp loo xam ne foog nañ ni bëgg nga ko saa yoo joxane joxañee taxaw nañ ci ay nit la ñoo xam ne daal loo leen ñaanal rek man mi di xeeb naa ko ndax dañ ma jiital ba pare ëpp ma passif. jërëjëf waaw man de kàddu sëñ Mbaye tuuti rek laa ci sof Mbàkke ñii danga nga leen a jàngalaat aw yoon waq di xawaay jëllatina daamu sëñ Tuubaa dafa wax ni yàlla maa ngi lay ñaan nga nga faj aajo képp koo xam ne dafa sax ci ma liggéeyal te nga may ko la ñuy sàkku dërs boobu nga jàngalaat leen ko ndax bi lii amee bi bi bi ci kenn yaa njëkk yëkkati sa alal def ko ci bàyyantum bi wadaalikal fawzu azim nga jàngal leen loolu loolu nag sarak yi nga àndal ñoom ñii nag waruf xatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maal wafaay bi sidqi fil uxuwaati ñuy am mbooloo mu ànd moo xam ne dara ñoru leen lu dul liggéeyal sëriñ tubaa nga boole leen ak sa rakk ji muy sëriñ Ahmadou ci liggéeyu université bi ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ndax lii banal xuduutu madrasatan lii banal li nga ñëwee sa yitte doon loolu ñoom ñu engagé wu am ci pas-pas am ci walante nga boole leen nag sëñ Ahmadou mi yàlla dogale ñu liggéey liggéey boobu ba gis ni lii am na ci dëkk bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni man faraja kurbata muslimin faraja laahu kurbahu yowmal xiyaama képp ku faj aajo jullit ci àdduna bu yowmal xiyaama suñu borom faj sa nga jàngal leen loolu xam ni lii mooy liggéeyal Serigne Touba lii mooy li nga xamante ni moo am solo ndax dafa bari ñoo dañoo bàyyi seen i dëkk seen dëkk bàyyi gent seen dëkk maam gent ñu ñëw ci sëriñ bi ñu nekk ci ndox mi te ban fii ñëw yaakaar ak jàpp ni fii moo gën a yomb ci ñoom ab dund moo gën a yomb ci ñoom moo ëpp ci ñoom naaf noflaay ñu gental seeni dëkk ñëw bi ndox mi dalee ci seen kaw nag wan nga leen ni Serigne Touba mooy xettalekaayu àdduna mooy xettalekaayu àllaaxira ndax jëf ji yaa ci gën a yaa ci jiitu ñëpp bi nga ñëwee sarak ju baax ji muy seex Cheikh Mamadou Bassir di jàmbaar lool bari na ñoo xam mi ngi leen di woo di leen soñu ñuy indi di la jox addiya te doo xam ne moom mii moo leen woo loolu lépp muy ab liggéeyam boo xam ni jaadu na buñ toogee ci yow ñu seddal la ko Mbakke dañ lay ñaanal yàlla guddal saw fan man aradallahu bi xayrin fata alayhi baabal amal wa axlaqa alayhi baabal jadal yàlla kum namm ci yow aw buntu liggéey la lay ubbil buntu jëf te buntu jëf bii bi nga ciy dugg murit yëpp nga ci dugalaale sa jëf jooju sa 200 millions bu benn murit woon andiwul woon dara bu ëllëgee bu leen sëriñ Tuubaa wax ni comme sëriñ bi moo xam ne inna allaahu wal muqi wa anna alxaasim yàlla moo joxe waaye man may séddale bu ëllëgee bu leen sëriñ Tuubaa di sédd ci sa 200 millions yooyu ñoom ñëpp daañu ci xaj defaru ci àdduna defaru ci àlaxira bu kenn ñëwul woon ñii nag ñuy sàkku nga ñaanal leen muy mbooloo moo xam dara ñoru leen lu dul jóg liggéeyal sëriñ tubaa anniversaire bi nga ko wootee dañoo ñëw taxaw lii bi ñu koy def xaaruñu ci ndigalul kenn ku dul waxtaane ko xam ni dañoo war a liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba waruñu cee xaar kenn ñu génne seen ala jox ci loolu nag Mbàkke loolu lépp sa doxin moo rafet sa jëf moo rafet ni ngay doxee moo rafet arab yi nag dañuy wax ni kulli say in yamur walakin laysa kulli say in yunsa am na bis yoo xam ne day romb buy jàll waaye dana ci am jëf yoo xam ne kenn du ko fàtte jëf jii nga xam ni mbooloo mi indi nañ ko tey jëf ko fii ba àddunay tukki danañ fàttaliku ne dat sàngamkat ba mbënn mi amee ci biir Touba ba sëñ mu Muntaxa defee nangam am na mbooloo moo xam jóg nañ fekk sëñ Muntaxa ci jëf jooju sa taxawaay nag day joxe misaalu Omar ibnul Abdul Aziz mi nga xam ne xalifatul muslimina la woon nga xam ne manduteem demoon na ba nga xam ne yàlla ci biir manduteem ak xilaafaam demoon na ba nga xam ni till du fekk béy ci biir àll mu di ko fàdd ngir manduteem ngir taxaw woon julli ca jamonoom maa ngi liir bërki démb euh, ci jamonoom amoon na lu mel nii la daloon aw askanam waaye ba mu ko dalee moo futti ku takk ndigam def nii nga def kon yow Mbàkke dañ ñaan ñaanal yàlla guddal saw fan waa maa maayen faw naasu fay mag su filaari googu yàlla di wax ci alxuraan ñu ngi naan yàlla dottul ñu ko ci yow ndax sagu murid yi nga sunu kiiraay nga sunu ndëgërndaay la mbooloo mi nag nga ñaanal ni yàlla gën leen a dëgëral gën leen a sàmm gën leen a taxaw ni ñu nasoo comme mel ni euh, kurus ñu ngi ñaan ci barkeb seexul xaddiim nga ñaanal leen nas googu mu doon loo xam ne àdduna ak alaxira lay doon ñu ngi lay sant Mbàkke di la ñaanal di la gërëm di sant Cheikh Mamadou Bassir mi bu baax a baax a baax di ko gërëm ndax gis nañ fan yi taxawaay bi mbënn mi pas-pas bi mu ci àndal ak engagement bi mu ci àndal ñun nag Mbàkke wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa duñu wax kenn wala taktumu shahadata wa man yaktumhaa fa innahu aasimun qalbuhu moom la ñuy bañ moo tax ñuy seede li ñuy seede ci moom di sant sëñ Ahmadou nga xam ne sa rakk la di sa xarit di sa soppe di sa taalibe dëgg la taalibe xarit mooy ak taalibe nit boo ko bëggee sopp ko dangeen dem ba nekk ay xarit te xarit moo Ibrahima Ibrahima ah wa taxasalaahu Ibrahima xalilan taxasalaahu Ibrahima xalilan donc lu foofu rek laa ko duggee waaye ku ne xam na ne seen toogaay bi ku bëggul nit soppoo ko amoo ci moom taalibe li ko yàlla def neexula doo tooge toogin wi ñii nag nii la yàlla def neex na leen seen yéene bu doon buñ ko manoon tey fanu yonant yàlla nuuhin wala yàlla di fàq jox la ko ndax sagub yoon wépp nga di santaale yi sa mbokk ma ca teewaawoon muy sëñ Babacar Si Mansour li mu def gis nañ ko lu symbolique la lu rëy ci njabootu Serigne tubaa la lu rëy ci yow la lu sedd sa xol la Serigne Bassirou mi waxtaan nga ceeg moom mu doon jëf joo xam ne jëf joo naw la jëf joo fonk la ndax euh, bàyyi na xel ni fee mu nekk ak fii yéen a bokk Serigne Touba yéen a bokk Seydi Alaaji Malick kon Mbàkke lépp nag buñ koy def ci yow lañ ko gisee ndax yow yaa yamalewul sa jëf ak sa taxawaay ak sa xetil mbindeef yi ci ci ci biir réew mi sa loxo ak sa xetilaa kon day génn ba génn bitim réew mi la Serigne Touba waxoon amara nii rab bi an usarriha bi an na ni malaasun wa mafsaun fa man araadal xayra fii kiltay daarayni falyarus bii loolu nga dëggal ci mbooleem eh, askan wi nekk ci biir àdduna bi kon Mbàkke yàlla na yàlla guddal saw fan yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla aar yal na yàlla taxaw xamal ni jëf ji daal ñoom xeeb nañ ko lool jëf ju jëf néew ci seen xol la buñ ko mënoon kenn ci ñoom kenn rek moo koy def maanaam xeebu na lool ci ñoom xeebu na lool ci kon Mbàkke nga ñaanal leen oh. dëgg la. macha allah jërëjëf loolu loolu laa njëkk a gis. dëgg la jërëjëf. te ma gis lii nag. dëgg la macha allah macha allah waaye li may li may li may li ma gën a ñor. mooy teewlu gi nga xam ne seen xol yi teewlu la teewlu jëmmi sëriñ bi. Mm-hmm. mel na yéen a ngi jàkkaarloo. macha allah macha allah. loolu loolu loolu loolu rek. macha allah jërëjëf waaw sëñ Ahmad Badawi rek. sëñ Ahmad. ñëwoon na fi sax wax ne kat moog sëriñ Mbay sëriñ Mbay itam woote ñu daal di jokkoo ci seen biir wax ne dañoo bëgg a daal di ñëw taxaw ci sa wet ndax lépp loo yëkkati jàpp nañ ne ñoo ci war a jiitu lii seen yéene mooy lépp loo bëgg def nga ne nangam laa bëgg ñu def ko nanga ko bëggee moo tax lii bi mu xewee li muy jàmp-jàmp bañ déggee sa kàddu dégg sa jëf ñu ne dañu daal di ñëw feeñal seen yéene bañ ma ko waxee dama leen waaw yéen seen naal bu mag wi macha allah talati ngeen dara ndax daari alxuraan jii nekk ci mu jàmm Cheikh Ahmadul Xadim dañoo ñëwoon ne la danoo fas yéene caabi lañu day jëbbal liggéey ba yéeme na lool ca xayma ju njëkk ja juróom-ñaari milliards yu topp lañu waxoon ne moo koy liggéey ñu ne la waaye sëriñ bi caabi lañ day jëbbal daal di waxtaan ci seen biir nosu nga tuddee leen tur wu màgg woowu yi tali'a nga xam ne ñun sax danoo xoolaat mën jiit tali'atul muridiyya bu ma leen koy firil nag lu daj sama xel rek ma indi ko ci waaye léeg dama naan leen yéen a war wane yoon wi ni liggéeyale sëriñ bi ci jamono ji ñu toll muy mbooloo mu àndandoo di jëf-jëf ju sell kenn ku nekk di def kàttanam waaye ñu nos ko ci nos woo xam ne lu waroon a jar nangam mën nañu wax ne genn wàll ga ndax liggéey bee ku fa dem luñ la wax ne dem na ci rek da nga naan wax ëpp na ko bokk na ci gan ñi fay ñëw di ko seet si loolu la ñuy njëkk wax waaye bu ñu leen waxee ni ñu ko defaree nag dañ naan loolu moom kéemaan ma ne leen bu ngeen duggee ci bunt bi ba yegg si fee lu ngeen gis mooy sëriñ bi li ko taalibe yi jox ka am dërëm joxe ka am ñaar dërëm ka am juróom-benn waaye daayira yi nga xam ne dañuy dajaloo di di sosi ci sëriñ bi di ko indi wala ñu jot ko seen bunt ci sëriñ ba mu indil ko sëriñ bi ak mboolem Cheikh Seck njaboot gi li ñu jox sëriñ bi ñii nag dañoo ñëwoon tobbil seen bopp aw sas wax sëriñ bi ne ko daare alxuraan yi caabi lañ day jébbal waaye yéeme na lool liggéey boobee nag ku koy def man jàppoon naa ne talatuñ leneen bi ñu ko waxee ma ñëw di tàggoo si loolu laa la wax ne la damaa damañ ma ko waxee damaa defe noonu seen sas bi moom talatuñ dara nga ne ma man de bu ñu ma ko waxoon loolu laa leen ciy tegal mat naw sa sëkk waaye nag boo demee na nga leen xamal ne lu ñu joxe ci loxo borom bi subhanahu wa taala lañ ko teg ndax sëriñ bi ba mu fi nekkee ci boromam rek la nekkoon mustatal leneen mustatal leneen lu borom lu dul boromam kon nag nun bi nu ko noppee gis ci zahir boromam moo ko fi nekkal buñ ko wooyee boromam a koy wuyul buñ ko joxee boromam a koy nangul boo ma demee loolu laa leen wax ni ko sëriñ bay waxee léegi ca ca ca jataay ba ca lañ daal di euh, li daje toppatoo liggéey bu tal nii ma ne leen itam sëriñ bi ci boppam nag nee na xelam dal na retiix ci liggéey bi ndax yitte jii nga xam ne mooy yitteem taxawaay bii ngeen ci taxaw xolam sedd na ci xelam dal na ci man leen baatu retiix yi dama koy dégg ci sëriñ bi kon noonu ma ko dama ko ma ko sëriñ bi waxoon laa leen ko jottali waaye nuy ay jàmbaar yoo xam ne liggéey bee de Mbakke yéeme na lool kon nag bi lii taxawee ñu taxawaat ànd ak pësteef wax wax ju rëy ji nga xam ne moom la sëriñ Bachir wax sëriñ Bay wax ko wane na ñoom buñ sañoon boo soxlaa wala boo jëmee ci dara dañ naan noo ko bëggee ñu defee ko ci noom waaye seen seen yéene amut amut fu mu yam kon nga ñaanal leen rek ba kàttan gi sunu borom kàttanal leen yokk kàttan gi ba lépp luñ yéene ñu mën koo def waaye nu àndandoo ñun ñëpp it ñaanalaat la nga yàgg fi te wér keroog ci bisu gàmm gi dana wax ne mboolem murit yi fi teew nañ fas ki seen xol fasal Cheikh Mouhamadul Mountakha kenn ku nekk na fas yëg-yëgam loolu defe naa ne dañ ko fàttali waaye ci la fekkoon ñëpp ñaan sunu borom bàyyi la fi tàggale yéene yi ba li nga bëgg a liggéey lislaam lépp ci toolu sëriñ bi nga mën koo def waaye see mbooloo mi rek laay seede seenu cant ak seen pastéef ak seen taxawaay ak nosu ndax liggéey bi seen biir lay wut ab liggéeykat ñooy dajale seenu seen i koppar sëñ Mbay mooy mooy mooy jawriñ ji waaye sëñ Ablaay mooy trésorier bi ñu wut seenub liggéeykat ci biir boo xam ne ñoom ñoo xam ne ñu jëflanteek moom waaye bâtiment yi daal yéeme na lu ñu wax ne dem na ca rek jàpp nañ ne lu ko ëpp dem na ca sell ga ak ak ak dëgër ga ak tegu ko tegu ko ca yoon ak méngoog jamono méngoog barab ba loolu lañ doon seede ci ñoom di ñaan suñu borom àggali yéen yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaamaaleykum wa rahmatullahi ci ndigalul sëriñ bi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba jotaay bii mu toogee nga xam ne mënees naa wax ne moo doon Serigne Touba tey te Serigne Touba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te taxawaay bu mate ko sëkk ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax yitteem jëpp dara génnu ci liggéey lislaam dara génnu ci liggéey Serigne Touba foo ko ñaanale yàlla na nga fi yàgg te wér lim lay waxe loolu doyuma ko dara lu may liggéeyal ko sëriñ bi te kuy dund ak moom wax naa ko fi barki démb keroog di biir kuy dund ak moom xam lim toggoo ci jaamu yàlla xam lim toggoo ci jëflante nit ñi da xalaat sax nu mu xaje ci bis bi ndax loo ko bett bett yaa ngi fekk mu yëg mu jël téer ba jàng bu nekkee ci mbooloo mi it lu yitte yi bari bari bari bari lii tey bari bari bari kenn ku ne daan la diglu tale sa aaju dana ko faj kon la Serigne Touba di lu ko nit ñi xam-xam rek ñu ñu ko gën a jege ñoo gën a xam ci moom dara waaye ku ko xam ku ne da xam ne na ma ko waxoon keroog rek kilifa la goo xam ne adduna sépp ci ñeek képp koo xam ne yaa ngi ci war a xam kon yàlla na fi yàgg tànn mu yëkkati kàddu yi cant nag ak ngërëm di ko jëre ci jëm ci kuréel bii nga xam ne yàlla def na kerew ba mu koy njëkkee tàmbali boobu màggal Tuubaa day door a jàll muy bëgg jëm ci liggéeyu université bi ca daaru tansil boobu suñu Ahmadu Badawi yéen mi ngi toog suñu Ablaye Jaw mi ngi toog suñu Bay Saar ngi toog suñu Cheikh Mbàkke Sey mooy jataay ba njëkk def laaj ci ndigal sëriñ bi jox leen ndigal ba noppi jël ëwtu jox leen tur wi nag kon mooy taliatul muridiya ñuy bo ñuy ay jàmbaar di boroom Pastef bayit ba sama xel de moom rek moom la suñ basiroon suñ xaari ba boo wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himun mahal wafaa'i bi sidqin fi l uxuwaati loolu waral liggéey bu rëy bi nga xam ne li ma ko fekk ci ay somb di bari na waaye yëpp laay àggale te yàlla def na yëpp sotti na ci loxoom muy liggéey Masaalikul Jinaan mu fekkoon Cheikh Sidi Moxtaar tàmbali woon ko ak Massa ak jumaay Tuubaa mu desoon lu baree bari loo xam nit ñi xamuñ ko waaye lépp mu àggale ko daan waaye nag sama yitte jëpp nag maa ngi ko jëm ca daare Cheikhul Xadim ji nga xam ne ndigalu Serigne Touba moo ci desoon ngeen yéen itam ngeen jël fa engagement te al xurru xurru maa lam kanam kenn déggu seen communiqué kenn déggu seen woote ko xamul dëgg-dëgg sax du yëg seen liggéey ngeen liggéey fa bâtiment yi yéen ngeen liggéey ci université kon loolu li sëriñ bi wax suñu am nga wax na ko léegi bu ngeen tàggoon sëriñ bi kon sëriñ bi danaa jéggal naa ndax yërëm leen ndax sëriñ bi mënta tege ñi nga xam ne seen maam yi sax dañoo yaakaar bu ci teg liggéey sax day diisoo noonu la ko yàlla bindee sëriñ bi mënta teg kenn dara kon nag bu yàlla defee lii am ngeen waxtaan ci seen biir tàmbalee ci sëñ Bay Saar sëñ Ablaay Ja ak sëñ Pap ak sëñ euh, Sëriñ Seck ak sëñ Kàbbu Gay ak sëñ Mbàkke Sàmb ak seex Cheikh Mbàkke Sey ñoom ñëpp daal ak ñi teewut ndax boo xasee tudd kenn tudd nga kenn sëñ Bass tam ñu ngi lay gërëm ndax yaa ngi leen di gën a boole di leen gën a dajale te ci liggéey sëñ Tuubaa bi la ndax sëñ Tuubaa moo ñaanal suñ borom ne ko yaa rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika alxasini washam laj maa kon loolu lu am sol la foo gisee lu baax rek yéene ko Sëriñ Tuubaa suñ képp ku koy jëfal ci yow lay delluwaat kon nag sëriñ bi nee na ak cantam ci yéen rëy na lool ndax lii kat bu ngeen ko defutoon doyloon na seen jëf jee ngeen jëfoon démb waaye xam na diggante bi gàtt na ndax ñett fan ngeen fi ngeen ko dajale kon ñu bari sax yéeguñ ko waaye lii rëy ndax kenn mën a guleen fi boo bokk suñ bi wootee ba tey nag fu ne taalibe yi nga fay jóge ñëw di joxe kon sëñ bi sant na bokk taalibe yëpp waaye yéen mi ngi leen beral seen cant di leen ñaan li tam addiyee ji ngeen fi indi yàlla na ko suñ borom tàbbal ci lim deele ci ku def ci yoonu yàlla te xam naa tàbbi na ci ndax dara génn ci dara génnu ci taalibe yi bañ na ko ba da ko ber sax duuru ko ci ko sëñ Tuubaa bi da ko ber ngir lépp jëmaat ci mbindeef yi te boo ko defutoon it yéen ba ngeen ko xasee joxe bu leen sa bu leen neexoon teg teg almet lakk ko ni ko der salaam defe waaye moom ci sellalam nangu dara jaxasoo ci sax lépp da ko delluwaat ci mbindeef yi kon yëg na ne lii eh, xam na fi mu taxawe te guddeeg bëccëg mañ cee def te li ciy feeñ itam li ci nit ñi xamul moo ko yëpp li mu dimbali ci nit li ci nit ñi xamul moo def kon dañ ko ñaan yàlla yàggal ko fi te ànd itam yàlla leen suñ boom tëbb kattan ni mu ko ñaani moom suñ bi tab tëbb leen ak wér may leen may loon may leen doole jëf nag ndax xam leen ne seen yéene ëppul fenn ndax suñu Ablaye Diop mii kat yéeneem àgg na ci beneen ma suñ bi sax dafa war woote taalibe suñ Tuubaa yëpp ngir dëkk bi ñu def ñu def ko assainissement ndax xam na ne eh, dëkk bi ku fi dugg xam na ne mel boo dugg ko fi sax waaye jot na ma téléphone ma suñ bi na sase na sa na sase assainissement bi ndox mi nit ñi defar ndax mu ñu ko sasee nit ñi mën nit ñi danañ ko def loolu lépp yéen i jàpp kon ñu ngi sant bu baax suñu borom defal Sëriñ Tuubaa ci yéen lépp dana mel nan bëgg incha allah nan ci nekk rek nan ci nekk rek dana mel nan bëgg ca desit bëgg nag xam ngeen ne kenn jiituwu leen ci jëf ba ca des rek nag liggéey sëñ Tuubaa moom kenn du ci wàcc waaye sëñ bi am na somb yu rëy ci dëkk bi waxagu ko nag xam naa fii ak janvier ba nawet bi jeex tàkk bañ bañ jublu ci lii dana ko yëgal bokk taal bi yëpp ci làmmiñam ba ñëpp di ko sama bopp ñëpp ñëpp defaat ko yitte comme ni defee université bi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen lu sëriñ bi seen xol yi na yéen a ngi jàkkaarloo sëriñ bi teewlu googu man man moom laa gis teewlu googu nag moo moo moo moo rëy man lool eh, waaye nag damay damay damay teewlu man itam eh, yàlla mi ko def ci yéen mu dolli leen ko te bu dañ mukk di leen ko dolli ba keroog bis ba fa fa fa ñuy wane eh, eh, ndam ya eh, fa damoo loolu foofu rek laa leen xool loolu foofu rek ndam ndam loolu rek laa leen yéene lu mu bëggal sama rek man man ma wax ne ñin laa ci jiital yéen a bëggal sama bopp <laughs> wala loolu moo loolu nekk man ndax bu ndax bëgguma dara lu sëriñ bi wutuma dara lu sëriñ bi te lu ma ci am yéene naa yéene naan ko lu ma ci bëgg rek bëggal naa leen ko kon nag jërë ngeen jëf eh, jërë ngeen jëf di leen sant leen gërëm bu baax a baax seen seen taxawaay bi ak seen jëf ji du loo xam ni mas na koo sant ci làmmiñ dañ koy teewlu ci xol rek xam na sëriñ bi gis na ko te te gërëm na ko ci gàttal waaw gis na ko gërëm na ko kon loolu doy na jërë ngeen jëf bisimilah. bi gaalam ngir biri ci lam lam la la ca nekk di ko ci indil war ngaa xam ne da lay sakkan rek waaye fii de boo nga génn fi ku war a mën a am dara ci niñ natt nit day amee ci kaw suuf mënoo ko cee génn ko def lépp yaa ngi doon baax yàlla nga jàng